ndax bu ma fàttalikoo daaw nii defe naa ne mu ngi fekkoon sust Diomaye Faye di doog a am euh, huit jours ci kaso bi defe naa euh, parce que booba jàpp gi jàpp gu bees la sama interview yi ma defoon fii ci daaw yëpp maa ngi doon wax pour ñaan ñu bàyyi ko ak doon wax tooñ giñ ko tooñoon kon donc buñ demaatee ba tey jii mu nekkaat kori gi même bis euh, suñ borom jël kàttan gépp teg ko ci loxoom loolu dañ ciy jàng yàlla xam ne yàlla maanaam féeteeg yow rek moo am solo te ñun nag yàlla rek lañuy ñuy wër ci lépp luñ mën a nekk loolu moo taxoon ñu ànd ci xeex bi di ci xeex ba tey li am am te yaakaar naa ne dinañ taxawaat fii nañ doon wax daaw ñu di ko wax niñ ko doon waxee daaw ñu waxee ko noonu su ma xoolee rek benn jàngat bu ndaw mooy imaamu daaw bi defe naa ne korite gii jàll groupe bi Jomaay Fay bokk wala boog bi ñuy xeex pour taxawal lii dëkkal nañu sax safara neexut waaye dinaa ko wax te wóor na ma ne tey du jàkkaarloog joomaay di ko dëkkal safara kon moom dina soppi discours am may wax loolu waxuma ko moom en tant que moom waaye damay woo imaam yi sama wax ji ñoom laa koy wax ñu delluwaat ci yàlla ragal yàlla xam ne kàddu giñ yor ci biir jàkka moomuñu ko kàddu yàlla la ki ñu fa taxawal ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la kenn amul droit taxaw ci jàkka di wax loo xamante ne ci sa bakkanu bopp nga ko teg wala sa intérêt yi bopp ngay lijjanti suñu ko defee rek président Macky Sall ñëw ak président Diomaye fay ñëw ak président Sonko ñëw ñooyam ci ñun ñun li ñuy wax yàlla lañ koy waxal duñ ci xàmmee Samba ak Demba waaye bu fekkee président Macky Sall dafa ñëw nga jël sa discours taaye ko ba mu jekk nga ciy wut lu ko neex bu subaa bu jomaay ñëwee nga soppi discours bi di ko taayewaat di wutaat lu ko neex te yàlla nekkut al alxuraan ba ko yàlla waxee li a ëpp na junni at kenn ku nekk ci ñun boo wéetee di ko jàng day mel ne yow lay waxal cela veut dire que mooy dafa wii sa dëgg gi di ko wax ndax dëgg rek moo sax alxaqu saabit kon loolu imaam yëpp laa ciy woo ñu delluwaat ragal yàlla ndax sañ naa leen ko wax ndax kenn laa ci seen biir ndax man imaam laa ñu delluwaat ragal yàlla te de sàmm yàlla ci sunuy wax ndax imaam yi seen discours bari na ci loo xam ne politique la ak di néewal doole opposition tey nag man naa ma wax sax bu ma neexoon ma ne du ma nekk ci opposition kon bu ma neexoon du ma ko wax waaye nañ bàyyi di néewal doole opposition ci suñ micro yi jàkka yi ak suñ min bari bëri na nag imaam yoo xam ne danañ wax te yàlla tax waaye bëri na ci ñoo xam ne dañuy politigaale nañ ko bàyyi gis naa démb imaam yuy laaj sukaru koor ma wax leen ne koo xam ne ba muy bu nekkee ci musiba doo masta bu nekkee ci xéewal bu ko ne mosalma ma daaw jomaay ba mu nekkee ca kaso ba mënoon nañoo wax ba tudd ko wala ñu wax ba tudd tooñ kiñ ko tooñ tabaski gii jàll mi ngi fekk président Ousmane ko ñu barikaate ko ca këram julli jiwut di mbokkum jullit ñu tooñ ko tooñ gu leer nañ imaam yëpp yu ci bari bokk sëmp ci seen làmmiñ ne miig tey nag buñ bëggee ne ko sa xéewal gi mosal ma ci mosal ma nag mastaa ko jiitu man mii di wax ak yow gii jàll ca kaso ba ko jullee te sama mbokki imaam yi ñëpp dañoo sëgg mu jàll doon wut lu neex Macky Sall loolu nag nañ ci jàng waxuma ko pour xaste waxuma ko pour feddali lu ñaaw waaye nañ ci jàng xam ne yàlla rek a wóor kenn amut doole kenn amut kàttan ku dul yàlla doo dara yàlla rek a fi nekk kon nag buñ demee ba jox la minbar nga taxaw taxawaayu suñ borom fàtteel sa bopp tey waxal yàlla su ko defee kon lépp dana mel ne li nga wax ren ak li nga wax daaw ak da ngay jël waxu Cheikh Ahmada Tidiane boo xam ne ba mu koy wax Senghor a ngi dund soo ko tegaatee tey day mel ne yow lay waxal parce que boobu yàlla rek moo taxoon muy wax te yàlla du fi jóg waaye nit moom jërta waxal jërta jaamu ndax nit moom du dara loolu rek laa amoon message bu may lancé nga nekk tey la sa njaboot yaa nga ne daaw ñi la fekk ci kaso bi nga julleeku lépp ci dëgg rek mu mel ni euh, même bu la dee rey dëgg moom sëñ baara ci lay nekk guddi ci nekk ba ci nga àdduna moom loo gis daa metti ñun ñi ñëpp suñu way jur yi biñ ñuy jur daa metti ci ñoom waaye ndax liñ ko jënde woon jar na ko wala jëru xam na ne xeex opposé wu rek dafa metti surtout ci sëriñ sax waaye nag ndax li ma doon def li ma ko jënd jar na ko wala jaru ko loolu tey yaakaar naa ne ku xool di nga xam ba xam liñ ko jënd jar na ko wala jaru ko man wax naa ko président Ousmane Sonko ma ne ko toogal ngay seetaan tele di nelaw di noppalu parce que yéen def ngeen résultat ba pare parce que Macky Sall fi mu jëmoon ku mën a fexe ba mu wan ñu gannaaw dem bàyyi ñu fi loo defati rek baax na. def na résultat mu mel ne péréction bi ngeen toog président te bokk na ci li ko pété bi ba tax jërul péréction jërul péréction moom sax amul péréction waaye damaa bëgg mu gën a noppalu. ñoom jomaay ñu gën a dalal seen xel di dallu di football yi di def lépp parce que ñoom def nañu résultat ba pare. parce que bu dul woon ak ñoom heure bii président Macky Sall mi ngi fi jëmee réew mi foo xamante ne kenn xamul fan la. xeex bi ñu xeex ak moom tey la seen i tey la seenu njaboot ba tax Macky Sall dem loolu pour résultat gis résultat. Ah, ah, euh, premier gouvernement bi nga xam ne benn cinq ministre ak li nga xam ne moom la ñu moo di reddition des comptes ak euh, euh, gouvernement maanaam Bassirou Diomaye Faye. waaw xam nga yooyu xajut fii dafa xaw a loolu dafa xaw a politique vingt cinq ministres ak yooyu. waaye li mën a am rek mooy man maa ngi dalal xelu tey ci yalla rek lañ mën a wax. ba beneen yoon ñu def interview wax ci àdduna ak ay ministre mais daal li wóor mooy ku dem ci alxuraan laaye ji nga xam ne mooy wa ma tasaa'uuna ilaa an yasaa allahu rabbul alamin boo adadee nga bind Ousmane Sonko bind Basirou joomay fay ñoo tolloo net loolu nag te boo defee Basirou Diomaye Diakhar Faye mooy fukki laa ilaaha illallah kon nag mbir mi mbirum yàlla la nguurug yàlla la yàllaa ñu ko jox yàllaa koy sàmm te na ci sénégalais yi dalal seen xel dina neex dina yàgg incha allah ban baax na Cheikh Bara 18h nit ñi muy nekk carte gi mu mel ne sénégalais yi dañoo meroon waaye dañoo di xaar 18h premier tour mu jeex tàkk waaw loolu loolu loolu loolu loolu leeroon na bu yàgg koor gi wàññi na ci dara génnuk Sonko kaso wàññi na ci dara parce que bari na ñoo xam ne bi Sonko génnee kaso seen xel dal na dematuñ defuñu dara mais bu fekkoon Sonko mi ci kaso bi 80 pour cent dañ ko gis ci élection yi parce que nit ñi boo waxee boo bëggee dégg-dégg Ousmane Sonko lañ bëgg te liñ doon def yéene lañ ko booleel moo tax ñu woor di wate no loolu moom ay kii rek ay ay tooñante la kenn toogul muy dox waaw parce que kenn ku nekk boo toogee du dox waaw waaw Oustaz Oustaz Modou Fall toogut day dem TFM muy dox kon kay moom toogut bokk ci bopp déedéet xëy na loolu ay tooñante la yu nekk ci penc bi rek xam nga Oustaz daa bëri kaf loolu la rek waaw jërëjëf